waaw 2021 bi maa ngi ciy souhaité sénégalais yi bon sante xam nga ak gudd fan ak wér yàlla musal ci cat ak seytaane musiba ak balaa suñu réew nekk réew boo xam ne vraiment mooy nekk réew boo xam ne tey jii mooy gën a neex ci àdduna ci 2021 bi maa ngi koy ñaanal ñëpp nag bàyyiwuma kenn waaw di ñaanal mbas mi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi lëmbe rawatina Sénégal yàlla sunu borom jëlee ko fi ci barke Seydina Mohamed barke borom Touba darajay maam Cheikh Fall waaw di wax Sénégalais yi daal vraiment kontaan nañ ci tele bi nga xam ne tey vraiment tey ñëw na ci réew mi tey nekk kàddu askan wi vraiment ñun kontaan nañ ci bu baax a baax a baax di leen ñaanal seen tele bi yéen a xam li ngeen bëgg yàlla ko suñu borom yóbbu ca télé yi nga xam ne tey moo gën a kawe ci àdduna bi. ak tawxiid moom wax dëgg yàlla moom ku ne xam ne ak ngëm la kon yéen gëm ngeen Sénégalais yi gëm ngeen aussi tamit vraiment askanu Sénégal. waaw seen tawhid googu daal yàlla nekk loo xam ne tey jii day ànd ak ngërëmal suñu borom ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw aussi ma ci lancé message aussi tamit vraiment bëgg naa aussi tamit ngeen di teg loo xam ne lu dëppook suñu aada la dëppook suñu diine ndax Sénégal dëkku diine la ndax ñaari diine rek a fi am muy diine lislaam ak diine chrétien waaw su ma sañoon daal vraiment ngeen nekk ngeen vey ci loolu waaw ci loo xam ne daal vraiment aada la ak cosaan te it ngeen wax sénégalais yi loo xam ni lu dëgg lay doon loo xam ne information yu wóor yoo xam ne day leer nañ su ko defee daal taw it googu sunu borom dina ko nangu ba yéen ciy liggéey yàlla suñu borom leneen defal nga yóbbu àjjana incha allah ci kàttanu yàlla di leen gërëm di leen sant nag.